jàmm li ñuy ñaan fii ci Sénégal émission bi mooy dalal jàmm salaam eh, ya salaam yonen xad faaka kabla xad basha fadla fadur wala wana fu jaahi barki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul yéen sunu mbokk internetu Dakar instant ñu ngi leen di jaar di leen béggee en l'instant même émission bu neex bi émission bu fasaaxa bi émission bi ñëpp bëgg émission bi ñëpp bëgg di ko teel ngir fa mu leen di yóbbu day neex ngir kàdduñ cee dégg muy laa ilaha illallah muhammadu rasulullah mooy ban émission dal jàmm waaye tey nag dal jàmm ci biir dal jàmm yi ndax tey dal jàmm dafa dalal koo xamante ni ndaw la ndaw la lool waaye nag bëggul lu dul kàddu yàlla sunu borom gi doon taalibeb sëriñ fàllu doon taalibe Serigne Fallou bu mag a mag a mag du ma ko présenté mais ni ma leen koy wone mooy dama bëgg mu nuyool boppam laay maa ngi lay ziar. maa ngi delloo ziar baax baax. ci loon ne. nii rek. laay da da nga sañse. waaw bàyyi ma waaye motoñ waaye. sama waa ji da nga sañse non da nga sañse. dëgg lu leer laa la da nga sañse neex. Mhm. laay ñu ngi lay ziar bu baax a baax di la bëggee. ñu delloo ziar baax. tey sunu mbokk internet Dakar instant li ma leen ko waxee woon ndaw la bu gëm boppam waaye bu xam boppam lool tey di ngeen dégg gis dëgg xam dëgg liñ naan dëgg puso la mag dana ko for xale dana ko for waaye xale bi tey moo may foral puso bi tey su ma doon laaj laaj afiya yaay kan waaw Ousmane laay benn ndaw la rek boo xam ne moom affaire gi da ko wuy si rek mu law maanaam dafa nekk benn ndaw boo xam ne bëggul lul sëriñ bi nekk tànk temps bëgg si kar si ba yàlla xëy dugal ko ci waaw ma ci profité nag di sant sama waa entourage sama waa daayra mhm. parce lii lépp ñoom la sant Baye Mouride Mbaye Mouride mooy suñu kilifa. sama xarit bi. sant Papa Lamine Mbaye mi nga xam ne mooy sunu jëruñu daayra. ndeysaan ak xaasim mi nga xam ne moom mu njëkk jox micro Massiga. kan xaasim. waaw jouru Poroxaan. xaasim men. xaasimu daa moo la njëkk jox micro nga sikar. barki sëñ Fallou. bi mu la joxee micro loo sikar. jouru euh, Poroxaan la woon. waaw fekk jamono jooju dama daan wër di Maada rek. waaw ma ñëw benn jour mu nekk jouru Poroxaan ma Maada ba pare. Mhm. ma Maada ba pare. ne ko damay sikar mu ne ma hmm. nga sikar lan jour boobu maa ngi njëkk may sa biige kumba faal yaay baabil xulo la ilaha illallah la ilaha illallah may sa biige kumba faal yaay baabil xulo loolu laa njëkk a daaj ndeysaan nga daaj ko mu àgg la fan bi ma ko daajee daal xam nga mais boobu maa ngi gën a nekk jeune di concentré pour bañ a génn temps bi daal. waaw ndax boobu boobu yaa ngi da nga ko jeex ko waaw manqué parce que parce que at ñu jox la ko nga téye ko. voilà waaw nga ni ko nga ni ko kirtim taraw lis ko. bugguma ci def benn erreur. waaw ba ma génnee erreur boobu teg ci jamono yooyu sax maa mooy erreur bi daan jógu daan sikar bambala bambala bambala yila yila boobu laa ci teg mais bi ma ci jugee après gars yi dañ ma encouragé. Mm-hmm. di jox bon condition xam nga ba tay da ñu yex fi dal hmm mara dama len di sante bu mm-hmm. baax di len mm-hmm. di sante sama yaay na fi ang koy sante bu baax di ko ñaanal mu dund ba fekke lepp ak sama papa amin biran ak sama papa di jam ndaysan ak Jabo ndaysan sunu wa keur ndaysan ma len di sante bu baax baax ma sha allah bi fay jugge léegi rek ñu lay lacc ndaysan yow mom da nga nek nit ku baax ndaysan ko xamne mën naa ne waa kër gisaguñ la mais dañ la bëgg te yàlla tax te loolu yàlla moo koy def. ndeysaan dëgg la. ak sëñ Fall dëgg la macha allah buñ déggee kàddu yi ni ko Abdoulaye yëkkatee ci maam Seera Fall yëkkatee ko ci laa ilaha illallah da ngay xam ni lii rek ay dëgg ñu njëkk ko jox micro mu sikkar jouru poroxaan loolu dafa neex jouru poroxaan lu soxna Jaara Buso may ziyaaraale bu baax baax ñi nga xamanteni moy serigne abdoulat Bousso biñ démé poroxat ñoñu dalal tatagal ñu ñom serigne Cheikh Bousso dalal ñu tatagal ñu wa Dakar instant ñu ngi leen di béggee bu baax a baax a baax lay, afir, tay lay bo afia ñu doon wax sa bop nga bëgg jekki lay ci sa bop kan moy abdoulay kan moy lay, waaw Ousmane comme ni ma la ko waxé rek abdoulay dafa nek ndaw nga nga yaroo fan juddo fan magge fan aw ci yëfi ndaw xam nga yoy day am. wow léegi loolu laay laa bëgg lay yow da nga neex <laughs> loolu la bëgg nga gennel mako manam lay laay afiye laay afiye daal Ousmane. euh ben ndaw la bo xamne bam duggé ci kar ci yagul yàggul mais xëy na yàlla moo ni lay démé hmm yalla mo tudone ni lay démé parce que ñu bëri sax non ci kar Ngor Pella juddoo yaroo fa màggee mhm. fa. ñoom ma Ndiaye ñu si bëri ñoom xam nañ am loo xam ne dara leen ndaamal ndaama faati. foowee nga football. ah daan naa ko def ci koñ bi. patin ci angle bi. donc <laughs> xeex ak simb xam nga ñaari yooyu. da nga doon xeex. waaw mën ta daal affaire affaire jeunesse la woon rek. waaw parce que man dama nekkoon ko xam ne dama dëgg dama ay dëgg dëgg lu fit bu sama bu simbakat yi daan ñëw di simb suñu koñ bu kenn ñemewul dem maay dem taxaw xam nga gaa yi topp ma laay laay tas profité nekk fa di xeex tas simb bi police quatrième daf ñu jege woon tout près. Mhm. balaa daan dem rek jooy def ay comédien gars yi reetaan xam ne kii nii mooy loolu rek taal seen oto. ma nekk mhm. ci kanam. Mhm. su ma nekkee ci kanam bu ñu wàccee bu ñu ñëwee ba Saalum wàcc rek bu ko defee simb bi tas na. léegi loolu ñëpp dañuy topp laay laay laay. mais xam nga rek ndeysaan àdduna. ndeysaan dafa doy dafa doy waar daal. dëgg la ma nekk ci nag. Mhm. bokk ci daayira Touba Jëf Jël. Mhm. njëkkoon naa bokk daayira mooy bu naafiwu daayira si ñaafiwu. Mhm. mais jamono go jamano googu dama faraan baax daa ma fa sikar. yow mii baax xiin. waaw jamono boobu dama faraan baax xiin. loo doon loo doon téye talmbar wala. mbalax mbalax loo doon def. ah ñëwal gaam ma dégg ça dépend yenn saa yi baax tak tak ki tak jëf jël baax musical musical comme tak tak ki tak tak waaw waaw <laughs> xam nga rek loolu yëpp ay jàng waay waay xam nga léegi nag bi ma bokkee daayra ridis avant fa avant ma faa dama daan dukkat dukkat moom laa daan def man ak sama mafia dama amoon sama góor boo xam ne ñëpp dañ daan dukkatandoom laa wax nañ la dama la bëgg barki Cheikh ya. <laughs> Ahmadou Bamba xaar man yow laay dama la bëgg da nga daan dukkat barki sëñ ci taa sa gën da gén ki gén da nga nga nga nga nga kii ba ci diwaanu galas nga nga nga sëgg sëggi waaw xam nga rek mënta ñàkk faas yi parce que loolu yëpp jaar-jaar la woon xëy na yàlla moo dogale noonu foofu yëpp di nga fa jaar daal waaw yàlla moo ko dogale woon macha allah lay sa àdduna ban bis nga am ci zikrullah lola neex lol lol lol lol lol ban jour nga am lol jour poroxaan bo ma njëkkee sikar jour bobu ba ma tok, tok xam ne bon gor ma góorgóorloo ci ci lima nit ñi wax di nga doon sikarkat ndeysaan macha allah wax deug yalla mo mhm. tax euh yoon bi mhm. li gars wax maa koy so gëm manam deugal la jubal ak gëm-gëm mhm. ndax lo gëm rek dara dala si ma sha allah jamono joju maa ngi topp Mbaye Ndiaye naan ko li ngay def rek laa bëgg Mbaye Ndiaye Mbaye Ndiaye ni la ko daan waxee mu ne wa ah, affaire yi de nii ak ni ak ni la bobu jamono ñom ñoo doon sikkar mom ak khasim mhm. ñoo doon sikkar si daara bi bo nek guma mais xam bo top sen tank mo waral lii lépp am sha allah parce que tamit boo tamit xatal la am ne no ko tay du demee ni ndax keneen tamit mën na xëy ñëw ci daara bi di roy ci xaas wala di roy ci mbay wala di roy ci laay. ñu doon na koy jàppale. Mm-hmm. sa xam ne cëram la luñ ko cërale la. dëgg la waaw parce que loolu doonu taalibeem. Mm-hmm. mën doon doo doon sëriñam loolu de dëgg la. waaye fu ñu waxee bànneex bu ñu neexee tamit fu ñu waxee bànneex rek xam nga naqar day ñëw naam ñun dunduñ ko waaye laay ban bis la am dem ci cant ñibbi toog. ben mbir metti ko mu metti lu ko ba tax mu tour xewal bés boobu mom mën naa ne sëñ Afia mhm. ba mu làqoo ndeysaan dafa daan ci li ma dégg dafa làqu alxames mais dañ ko denc ajjuma ci goudi ñun bañu daara daayira ridis buntu kër Baay Murit ci lay soog information bama sikere ba ba wàccee dugg ci biir di wut café ci la benn élément ñëw muy Omar Mbaye ñëw jox ñu nouvelle boobu. sant gi dafa jaare yàqu après kenn sikaraatul mm-hmm. ma xam ne tey laay affaire law bu mu law ba tax sëñ affaire bu làqoo ñii ay ku ko dégg sax sa xel day dem ci man. Mm-hmm. xam kooku ndimbal loolu ndimbal la. Mm-hmm. ndax bu bu ñu gën a nekk tout temps bu ñu masaan sikar di yëkkati turu yàlla. sëñ bi day taal oto ñëw diwaanu galas. ndeysaan yàgg naa fa taxaw téye micro. ndax bëggu naa sikkar si bëgg boo xam ne Ousmane lii mënu woon ñàkk diwaanu galas heure mu fa daan dem duñ sax monter rajo ndeysaan barki sëñ Fall duñu monter rajo damay dem toog di xaar di toog gars yi monter rajo kurul xaste bu daan rek sama fi bi ne tëf ba jëwriñ ne ma laay bismillah ndeysaan ma maddaa suma maddaay cand gi tàmbale ba mu mësaan daaj afiya mu faliloo moo nu yem ak fi siñaa fi di droité benn lay doon sikaraatal ma loolu billaay wallaay afiya mu falliloo munu yee ndeysaan sëñ afiya doomi falliloo doy nga noo ilalaawoo noonu laa ko daan sikare sëñ afiya tourné ñëw gaare otom dëgg la ñaanal ñu mhm. xëy na tam ñaan yooyu du ñaanu ay tiaxat dal, mhm. parce que kilifa kilifa la nit ku baxon la dal, ndeysaan dig yalla kan mo massa sikar ci kat yi di sikar nga koy yek suma nexe sax ma la kan moy sa kat ci kat yi. wa man <laughs> man dal Cheikh mbay ci mom la don roy. Cheikh mbay Cheikh mbay Cheikh mbay la roy allahumma kulli karimin akramu. Cheikh mbay ci mom la imiter ba ma gënee nekk tu tànk mhm. lii ma daay ma daaw di sikar ay sikaram dama daan toog si machine di ñaw sax benn sikaram dama koy teg teg ku nga xam ne bu jeexee day ñëwaat bu jeexee di ñëwaat bu jeexee di ba ma maîtriser ko pour jori bu ma demee diwaan mën ko sikar ndeysaan noonu laa daan def ba ci son boobu mu génne allahu min kulli karimin akramo man amoo adlo takaramo dama ko maîtriser woon ba su ma ko sikaree si wala ma taxaw diwaanu gas ma daw Cheikh mbay da nga nan Cheikh mbay moy Madaa papa bi papa bi ka daan jaajal. macha allah ben jour loolu la fop ma ci carré ba romb ko mu ne ma ha Cheikh mbay mo doon sikar ma ne ko dede man la won mu ne ma man de Cheikh mbay la la tegon ndaysan mais dama dem ba ci biir di utiliser sama voix bopp. xam nga parce que boo yëngatu ci nit bu yàggee après di nga. da ngay monotone sax. wa da ngay monotone am sa mbiru bop da ci bax loolu bis bobu nga ma laaj nak mësna ma dal. nga mhm. sama dalé eh. te loolu xaasim moo xaasim la woon. mooy heure bu muy faral di sikar rek turu yàlla bi maa ngi dox nii ci kuréel bi mais ba mu nee laa Ousmane. barki sëñ xaasim barki xaasim. lu muy waxu woon. mooy heure boobu muy sikar laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah allahu laa kariim mu falli loo laa ilaa loolu la mës a daaj ndeysaan bëggatuma dara si cant gi dëgg la ndax turu yàlla bi ak adduna mhm. bi xam nga rek ñoo mhm. boo ko xalaatee mhm. du adduna mool du jaral dara dëgg la barki sëñ Fallou ndeysaan may jooy comme xale ci kuréel bi ndeysaan te tayuma ko ndeysaan ñaari yëpp ñaari noo ma sa arrivé te ñaari yëpp xaas xaasim na ma dalee cey waaw man nag dama gis yow da ngay dund xaasi waaw waaye c'est normal parce que Ousmane xaasim tey fu mu dem dañ ko naan ana afiya man fu dem ñu ne ma ana xaasim kon am xam du hasard. Mhm. barki sëñ Fallou. macha allah. di ci profité waale euh, di sant euh, sam papa. ma di caam maa koy sant bu baax ndax tey it euh, mën naa ne sama comportement bu changé ci lu bëri yàlla ak moom la. parce que ba ma mhm. nekkee tout tànk ma jël yóbbu ma daara parcelle unité 15.

ñoom ay tijaan lañ man ak ñoom ñu nekk ci benn kër. ndeysaan. sama yaay tijaan la sama rakk suñu kër ñëpp ay tijaan lañ man rek maa fa nekk. mu sama xarit jabu jabu barki sëñ Fallou mais dañu fier ci ànd ak man ci li may def nii. Mhm. barki sëñ Fallou. parce que xam nga jeunesse su léegi bàyyi fallement bi ni ko gars yi di. ñu koy dundee waaw. daf daf lu undu undu lu. fekk mhm. loolu amul sens. dëgg la nit ki bu ñu leen nawloo day fekk sa waa kër ñoo leen njëkk a nawloo. dëgg la boo génnee ci mbedd mi ñu soog la. dëgg la dëgg war a njëkk a dëgg la loolu am na loolu loolu macha allah euh, ni nga jaaree sa waajuru góor ma it jàppal ni noonu laa ko ziaree ndax xëy na jur na la macha allah waaye ñu nit jur nañu di ziar sama xarit jabu jabu moom sama xarit la sama jabu bopp la maa ngi koy ziar de passage di ko béggee bu baax a baax a baax tey wax ñëpp nañ wàcc le premier mai. bis bi dinañ ko téye ñun waa dakaar instant ci sunu loxo ndax baay Mouride mbay cest bi wax jam ñu waxoon ñun waa Dakar instant ne yàlla nattu na leen ci lii ngir Serigne Touba kon dee leen ci ne ndax day baax Baye Mouride Mbaye moo ñu ko waxoon ci bisu xaasim ba le premier février naan la mbay yaaram dundal jàbu fàttewuma la maa ngi lay bëgg bu baax amat ñaa sama ñaseen bu mag bi maa ngi lay char bu baax a baax di la bëggee sa kaddu gi ngay yëkëté jotay bi lay afiya ak ñi nga xamanteni ni yóbbante neen ma sa yow moy sa groupe bi waaw lay afiya nak dama bëgg ku ko xamutoon xam ne tey Serigne Abdou Karim la lool leer na afiya bi lawna ba faaw te kenn mënu ci dara te moy jamm hmm waaw mhm. nek na tour bo xam sax gaarin ka daan foy ba far mu law mu neex la man sax moko daan toñu bu ma ka may sikar mu ñëw ne ma lay tek ci tax bi lawna na mais sante yalla tamit quoi Masya allah ci sant bu baax allah ñu ngi waajal daal bis bi bu baax di sant tamit sama yaay ndax ma taxaw jàppale ma moom ci lu bëri ak mhm. sama soxna mhm. Amin Njaay mhm. maa ngi koy sant wala am nga soxna am naa jabar maa ñàkk jom <laughs> dégg nga Ousmane di sant tata Aïcha moom tamit sama yaay yu baax la koy sant mi ngi kër ga allah di ko ñaanal tamit di sant euh, Fandaw maa ngi sant. Mhm. suñu waa kër daal gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp. bu baax a baax mm, mm, macha allah. waa daayira moom aw seen fay. dëgg la parce que. jëf jël jëf zéro faute. maa ngi leen di sant di ñaanal daal bis bi yàlla ci yàlla bàyyi ba mu yegg ak jàmm. boo gisee man la xaasim maanaam Ousmane dama ko war delloo njukkal. Mhm. Euh, fan yee passé Baye Ndiaye dafa génne son ma gis gars def est gars yi dugal essai rek. ñu dugal ko ci groupe man tam ma jël dugal statut bi ma dugalee statut ne ko ah lii kañ la yëguma ko woon de mu ne ma bu yeboo nga waajal yow tamit sa bos maa koy fay sa pourtant man maa ngi am studio bu ma dem génne son. dëgg la mais xam nga kooku yéene. yéene la macha allah kon rafet na. borom baax la macha allah yàlla na sëriñ bi dolli kontaan nañ laay kontaan nañ bu baax a baax a baax ñun ñoo leen dalaloon waaw. ci Dakar instant ci seen émission bi ngeen taamu moy dal jàmm ñu dalalon ki nga xamante moy lay Laye di taalibe Serigne Abdou Karim Mbacké fallilu bu leer a leer a waye nak fi ma génne paté Abakara mo fi génne moo fi génne 100 pour Abakara Sani moo fi génne 78 222 06 38 moy numéro am moo ma génne sama tailleur bu ñaawul bi di len bégee di len safo di len ndamu yéen ñiy seetaan émission daal jàmm demal YouTube bind Dakar instant nga abonné paate nee na ñu laal jóoloo li ba mu ne kiling-ling am leen jàmm Dakar instant rek yaa ma gën a xam man xaw ma ci kaw leen juge man dama jéggi saay rek gis leen ba pare foo tourné Dakar instant ngay gis. waaw mais loolu ëpp na Dakar instant ca kaw ca kanam rek. waaw ah Dakar instant daal gis naa seen caméra bi ni mëtti mi nii.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 mais ni ma gisee Dakar instant dafay prouver ne ko Dakar instant ci kanam la jëm incha allah. gars ñu ngi koy suivre Dakar instant lan leen laay wax na gars dem abonné loolu bëgg si actualité ñëw leen si Dakar instant. sa liggéey rafet na trop macha allah. Mbacke loo wax ci waa Dakar instant. waaw Dakar instant nag moom ñoom danoo xew ndax bañ naa ko chaque jour bu ma xee information yi may soxla yëpp ñoo ma koy jox muy dugg ci YouTube bi da ko xool rek. looy wax ci Dakar instant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 Adresse email gmail.com L'actualité à l'instant, c'est sur Dakar